leen jàmm ci xibaar yéen kaay démb réewum Sénégal meloon na ni li ko waral moo di campagne électorale bi démb koy la door campagne toj da nga xam ne nag moo di ndóoyéen foofee la ubbee ab campagne bu dee njiitu nag président de la république Macky Sall mi ngi doon amalee ab campagne ca Mbàkke ca terrain ba démb koy dëkkoo duy ba mu fees del bu dee Idrissa Seck moom ndaamal Kajoor Sud di ñu xamal ne duy na Thiès ba Seck mi ngi ko doon amal ci Thiès yéenekaay bi di 24 heures dikkaat ci mbir maag na mu demee candidat bu ci nekk fa mu nekkoon enquête yéenekaay bi di ñu xamal ne bu dee dak professeur Issa Sall moom mi nga xam ne nag moo jiite Pire banlieue bi nga xam ne fa la doon amalee mitinam daanaka ndaxte bu dee njiiti réew mi ma nga nekkoon ca Mbàkke libération di ñu xamal ne laataa muy dem ca mitin boobee dafa njëkke ci xalif général des mourides waaw nee ma Serigne Mountakha Bassirou Mbacké fa la demee ci moom daal di sàkku ñaan libé di ñu xamal ne Macky Sall ba mu eggee xalif général des mourides dalal na xelam nee na ko nag liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy def ci yoonu Serigne Touba ak këru kilifa diine yi liggéey boobee gis nañu ko dinañ la ñaanal yàlla bàyyi la ak Serigne démb kay njiitu mi daanaka bu tëddee xelam mën naa dal waaw loolee la ko wax ca kanamu xalif général des mourides boo tëddee sa xel mën naa dal Les Échos yéenekaay ñu xamal ne démb kay njiitu mi confiance dëgg la amoon ci meeting bi nga xam ne moom ko nag yi mbir yi sotti na ba pare ndaxte mbir yi premier tour la koy gagné Les Échos yéenekaay noonu la ko fësalee leneen lu fësal démb na ca meeting ba muy pancarte yi source ne guerre des pancartes carte daal bàyyi wuñu ko ku ci nekk nag di yëkkati sa paak carte ngir njiitu réew mi séen ki yëkkati a yokk ba a yaatu ne jamono ji baaxu ca jot na nag ñi nga xam ne nag ñoo di responsable politique yi nga xam ne ñoo nekkee foofee ñu daal dox lépp lu ñu mën ñu daal di koy joxaat réew mii ne moom la ñuy wax critique mu ñuy xamal ne démb daanaka campagne électorale bi li ci a fës ay dige bokk na ci waaw ay dige fa ay dige yu topp xepp ab parc industriel bu nga xam ne da koo dig waa Touba Idrissa Seck moom daamal Kajoor moom nag jamono ji li nga xam ne moom moo ko ñor muy ñu fàtte démbam daal di xool ci tayam lan la mën a andil réewum Sénégal turbine yéenekaay ne ko ak lu mën di xew élection yi nga xam ne daal moom la ñu dërmal do élection yu yomb den nuru sax luy yomb ndaxte candidat yu saf sàpp ñoo am ci jongante njiitu réew yi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéenikaay bi di l'observateur moom nag daan ñu dikkal ci candidat yi ak oto yu bakkane yi nga xam ne moom la dawal mu ngir seen campagne bu xamal ne woon ko doon xayma njëg la dana toll ci ñaari téeméer ci ay millions bu dee ki nga xam ne nag moo di Ousmane Sonko Sonko bi mu daal jàpp ne moom Ousmane Sonko moomee daf koo jàppee sax ab géntikat yéenikaay bi di laas yéenikaay moom nag génn feneen xam ne moom la ñu dëgmal vox populi moom nag ci ñu xamal ne jamono ji nga xam ne candidat yi ñi ngi campagne ku ci nekk fu nga xam yaa nga xam ne mën nañ ko war ne mekku ci réewum Sénégal yéenekaay bii di vox populi di ñu ndox gu métti moo amoon ci Dakar leneen li nga xam ne tamit mën na ko fay nemmeeku téere bi nga xam ne Birahim Seck daan xaatim ci bu métti bi nga xam ne moo am démb ci Sicap Amitié yéenekaay bi di l'observateur di kat ci di ñu xamal ne benn jigéen daal moo doon dawal benn oto ak oto ba nag juróom-ñeenti nit moo ca nekkoon oto ba daal di daw ba saaraan daal di mbëkk garab juróom benn nit nga xam ne nag moo doon dawal oto ji sonn lool ba toll ci diggante dund ak dee jërë ngeen jëf ba beneen